jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nu ñu leen koy defalee saa su mbokk yi di leen jëfal fu waaye mën a nekk ci àdduna ci réew mi ak bitim réew ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax gis nañ bëgg bi ngeen bëgg wasaare làmb ak ànd bu rafet bi ngay ànd ak ñu ci saa su ne ñu leen di jëfalaat bu baax a baax a baax mbokk yi tey ñu bëggoon waxtaan tuuti ci làmb saison bi ni mu commencé ak juróomi weer yi nga xamante ne ci lañu bëre lu ci bari xew ci làmb ñu waxtaan ci mbokk yi waaye ginnaaw loolu dañuy ubbee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi ci yàlla lañuy jóge te ci yàlla suñu borom moomu la ñuy dollu xale boo xamante ne làmb amoon nañ ci moom yaakaar xale boo xamante ne avenir la woon ci làmb xale boo xamante ne bu dugg see nga gis ko jëmmam ak ni mu mel ci làmb dangay rafet njort ni fu champion di yegg ci làmb mun na faa yegg. muy kan kooku moo nekkoon ki nga xamante ne mooy Papa Yada numéro 2 Papa Yada numéro 2 moo génn àdduna nit ki bërki démb ñu denc ko démb fële ci Tëngéej moo ki ñu koy jaale képp koo xamante ni bokk na ci làmb képp koo xamante ni mbokkam nga képp koo xamante ni njagañaaleem nga ñu leen di jaale kii di Papa Yada di ko ñaanal suñu boroom fële mu jëm yàlla na ko dàqal lool fii mu jógee yàlla njaboot gi nga xamante ne bàyyi na ko fii yàlla na ci yàlla suñu borom teg loxo mbokk yi tey ñu waxtaan tuuti ci ki nga xamante ni mooy suñu papa Luc Nicolaï libération bi nga xamante ni am na ko ndax képp koo dékk micro rek ñaanal ne kii di suñu papa Luc Nicolaï di ko ñaanal yàlla suñu borom génnee ko fële mu nekk gannaaw àpp bi nag suñu borom moo ko dogal ba mu génn dellusiwaat ci famille dellusiwaat ci njabootam dellusiwaat ci axlu làmp mi nga xamante ni soxla woon nañ ko suñu papa Luc Nicolaï njariñ la ci làmb njariñ la ci mbëru làmb njariñ la képp koo xamante ni dangaa bëgg sport bii di làmb ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax fi mu jógee yàlla bu mu fa delluwaat yàlla na nekk mujjéntalem daje fële ndax àdduna moom euh, dara jommul kenn te it kasa jommul kenn ñu koy ñaanal rek ni mu dellu si ci activités yi ku ci mel ni Modou Lo ak Ama Baldé xam naa ne yàqamti woon nañ ko ñi bëggoon làmb yàqamti woon nañ loolu ngir combat bu mag bi ñu doon xaar muy dox diggante Modou Lo ak Ama Baldé di combat royal boobu mbokk yi ñu leen di jëfalaat bu baax a baax a baax ñuy wax ne saison bi cinq mois la ci biir cinq mois yi 37 journée moo ci am mbokk yi 37 journée yi 23 promoteurs ñoo ko tëgg lu musul am ci làmb mbokk loo xamante ni ba làmb dee làmb ba tey musuñu ko gis ci làmb cinq mois yoo xamante ni moo am ci saison bu lëmm 37 journée yoo xamante ni moo am ci saison lëmm 23 promoteurs ñoo tëgg ak làmb ni mu mel journée yi ni mu baree ak làmb ni mu mel promoteurs yi ni ñu baree ak làmb ni mu mel mais gis nga loolu suñ borom dogal ngir lan feebar bi nga xamante ni mooy Covid 19 moo waral loolu lépp ok ñuy jaajëfalaat képp koo xamante ni yaa ñuy bëggee di ñu seetaan. mbokki ñu ñëwaat tuuti ci ki nga xamante ni mooy dàq Sitor Ndour Sitor ci saison bi euh, ci feebaru bu bi ca lañ ko dàq dàq bi ñu ko dàq jëlee ko ci loxo arbitre yi dàq ko moom Sitor nduur mu nekk koo xamante ni loolu métti na ñu bari ci làmb koo ci wax mu ne la dàq bi du yoon waruñu ko woon a dàq Sitor dafa bokk ci làmb du arbitre boo xamante ni te journée yu mag yëpp Sitor Ndour arbitre na ko boo xoolee diggante Yaxya Diop Yékini ak bombar Bombardier fële ci stade Diop wala fële ci stade Demba Diop moom moom Sitor Ndour bokkoon na ci ñu sauvé journée boobu bari na ci ay journée yoo xamante ni macha allah Sitor Ndour bu yoree arbitre bi sa xel day dal kon wolof daf ne réeroo amul ñàkk waxtaan rek am te bu leen fàtte loolu ñu ko ci mel ni Sitor Ndour nduur Malick Ngom ak yeneen arbitre yi nga xamante ni. làmb daf leen soxla ñu bëgg leen mbokk yi tey ñu ñëwaat keneen koo xamante ni feebar bi ba tey moo tax combat boobu gisuñu ko ku mel ni Siteu ak Papa Sow xale langsaar bi Siteu le tarkinda Siteu nga xamante ni bu see ci làmb doo laajte ana mbër bi bu fekkee bu feccee mu neex su bëree mu neex jaay combat yi Siteu moomu ci doy muy bëre kan ki nga xamante ni moo nekkoon le piment de face muy Papa nga xamante ne léegi mu ngi jàmbaar Wrestling Academy moom Papa Sow moom moom la Siteu di dajeel Papa Sow mi nga xamante ne bëri na ak Zos Papa Sow mi nga xamante ne bëri na ak Ama Balde Papa Sow mi nga xamante ni bëri na ndaanaan yu bari ci làmb combat boobu ñu ko doon xaar le 5 avril nga xamante ni loolu arène nationale tukk sa bënn la saaj ba réer waaye gis nga feebar bi xam naa ni daal ëlëm nañu corona bi moom xaw ma fu ñu jëm ak ñun waaye. liñ doon xaar ci làmb yépp corona yàqal nañu ko ñu ñëwaat ci diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñu mu doonoon combat boo xamante ni dañ koo yaakaaroon di ko xaar suñu papa Xaadim Samb moo ko tëgg <laughs> waaye jour boobu lañ doon xaar yépp ñu mujjee am mbégteel mbégteel bi ñu ci am mooy liñ doon xaar ci làmb ji gisuñu ko keroog mu dox ci diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñu gis nga Alioune Seye mujj naa bëre waaye ka mu bëreel règle amul licence bokkul ci écrit daa ñëw rek ànd ak mbër bërek Alioune Seye yàlla def mu yóbbu Alioune Seye ardo ba combat boobu mujjeewu la am mu doonoon loo xamante ne waroon nañ cee taxaw seetlu waxtaanoon nañ ci waxtaana na naat ci Alioune loolu nga xamante ni metti woon na ko trop ci diggante ma ñàkk jariñu loolu yëpp ci feebar bi moo waral loolu xew mbokk yi ñu ñëwaat ci ñenn ñi nga xamante ni yaa guy bu mag di branche bu mag daanu ci làmb muy suñu papa Doudou Yaye génn àdduna Doudou Yaye nekkoon koo xamante ne bu dugg see ci làmb ba jël micro nga xam ni macha allah fa tabaarakallah kii ndaanaanu ndaanaani la bu jëlee micro ba woy nga xam ni kii woyli woyli la moom moomu suñu papa Doudou Yaye mu génn àdduna ñu di ko ñaanal fële mu jëm yàlla na ko dàqal lool fii mu jógee njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na suñ borom teg loxo dudu yaay kat xam naa ni daal duñu ko fàtte di ko jaale képp koo xamante ni ancien gloire nga képp koo xamante ne reporter nga képp koo xamante ni danga bokk ci làmb rek ñu ngi lay jaale suñu papa dudu yaay kat yi ñëwaat ci keneen koo xamante ni génn na àdduna moom it doonoon frère ci bombardier yi doonoon frère ci ci ci ci bombardier doonoon koo xamante ni lépp bombardier yi moo ko yoroon daanaka mënoon nañ ni moom mooy waajuru bombardier yi signature contrat bu jotaan moom ngay gis moo naan ko waxeel nii defeel nii bul def lii bul wax lii kooku mooy Papa Dia Papa Dia tamit génn àdduna moom it ñu koy rendre hommage di ko ñaanal bu baax a baax a baax yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana te suuf woyof ci kawam yàlla njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na fi suñu borom teg loxo mbokk yi ñu ñëwaat ci keneen koo xamante ni ñu woon ni dina dem moment bi yaakaaroon na ni dina ànd ak ñun gunge ñu ci làmb ba ci kanam muy Jules Baldé Junior Abibulaay mu génn àdduna moom it moom it ñu di ko ñaanal bu baax a baax a baax ginnaaw feebar bi nga xamante ni tëdd na ko muy feebar bu yàgg di feebar bu metti mu tëdd ko ay mbokkam jàpp ci ay njagañaaleem jàpp ci képp koo xamante ni daan na ànd ak moom rek jàpp na ci ba yàlla suñu borom mi nga xamante ni moo yor dernière décision bi suñu borom def li gën li gën mooy abibulaay wuy ji na suñu borom moom it ñu di ko ñaanal di ko jaale képp kuy doomu pikin di ko jaale képp koo xamante ni njabootu làmb ga ñu ne ni jaale abibulaay di ko ñaanal yàlla suñu borom bi yërëm ko taxare ko àjjana suufu Pikine yàlla na woyof ci kawam mbokk yi ñu ñëwaat ci keneen koo xamante ni génn na àdduna moom it muy suñu papa Mor Nguer Mor Nguer moom it génn na àdduna mu doonoon koo xamante ni champion la ci làmb gannaaw fekkewuñu sax carrière ci làmb waaye am na luñ jot a dégg ci moom ndax wolof daf ne noppkat moom ak borom ndax fekkewuñu lu bari ci réew mi waaye am na loo xamante ne nettali nañu ko ci taarix mooy suñuy papa moor Ngeer li nga xamante ne jot na ko def jaloore ci làmb moom it mu génn àdduna euh, ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla suñu borom yërëm ko te xaare ko àjjana suñu papa Mor Ngeer euh, yàlla na ko fële mu jëm yàlla na ko dàqal lool fi mu jóge ñuy wax ni làmb noonu la te àdduna surtout àdduna noonu la demal maa ngi ñëw la te it ku xam ni bis bi du jaas war nañ ko di fàttaliku bis bi war naa tax ku nekk rafetalaatal sa diggante ak sa moroom bis bi war naa tax ku nekk bañ a indi xiiroo ak ŋaayoo li ko waral mooy se euh, dëju démb ki nga xamante ne mooy Papa Yada gis nañ fa mbër yu bari ñoo xamante ne bokk ñoo moom équipe te ku leen boole woon nag ca làmb ñu bëre ñu laale caatu yoof wane na ko ñëw na fa te ñu ngi doon dox combat am mu ngi doon dox seen combat ñoom ñaar waaye gis nga loolu la yàlla suñu boroom dogal combat boobu Pape doon dox diggante caatu yoof ak Papa Yadda mu jéewu la am ndax Papa Yadda génn na li nga xamante ni mooy àdduna ma koy jaalewaat bu baax a baax baax a baax waa Tëngéej gépp di ko jaale ama neex ama neex metti na trop sa rakk boo xamante ni amoon nga ci moom yaakaar sa rakk boo xamante ni avenir la woon ci làmp mu génn àdduna waaye yàlla na la yàlla may xolub muñ fi mu la féete woon yàlla la yàlla defal njaboot gu kaweta barkeel may leen keneen koo xamante ni dana leen féete fu ko raw yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def mbokk yi noonu la demee ñu ci ànd ak yéen di ci waxtaan ak yéen ci lépp loo xamante ne xew-xewu làmb la dinañ dinañ ci waxtaan saa su ne di ngeen ñu gis saa su ne ñuy feeñ ci écran bi di waxtaan ak yéen leen rendre hommage bu baax a baax a baax ñuy jaajëfal képp koo xamante ni day seetaan wasaare làmb ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo sant ak ngërëm ñeel na ñëpp ñu di jaajëfal bu baax a baax a baax jërëjëf aadama jërëjëf sëñ Basiru jërëjëf Wassare Lamb